dénkaay ri soirée et fils moo leen di may seen xutba aljuma juma sëriñ Murtada Mbàkke ci Grand Thiès imtidaay fi axlaaqi kon mbokk yi ginnaaw bi ñu daaneele xutba bi dañ koy tënk rek ñu gën koo mën a jariñoo ñu sant borom bi nga xam ne moo ñu xéewale ngeen gis gën jaa selli mi muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam may ñu ko tam mu nekk xéewal yu rëy rëy ci ñun jagleel ñu ko waaye tam jagleel ñu ngeen ji xéewal muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ni amul amul kenn ku mel ni moom amul benn mbindeef ku mel ni moom mi nga xam ni suñ borom tabaraka wa moo ko yaral boppam mu ni suñ borom yar na ma te defar na sama yar waaye seede ni nag amul benn bur bu du yàlla seede ni seydina muhammad moomu ndawal borom bi la ab yonentam la moo yore exemple bu mat bi ci jikkoom yi ak ay melokaanam yéen jullit yi képp ku xool jaar-jaari seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak li ko yàlla may li ci jikko yu tedd ak li ko yàlla may ci melokaan wu rafet danga xam ci sa xel rek avant ngay xool benn nas ci alquran wala benn xadis ni kii de gën képp ku dul moom bokk na moo tax Sëriñ di radiyallaahu taala anhu ni kii de mooy yonant mooy ki yàlla sol kii mooy yonant bi mooy ngën ji jaamu suñu boroom waaye mooy sang bi kii mooy xarit bi kii mooy soppe bi ku mel nii mustafeen ci àdduna bokk na ci jikkoom yu tedd ya moom salaa dañ war koo roy moo gën a yaatu ñëpp denn moom salaa sam ku mënoon muñ la waaye moo gënoon a gi wax moom sallallahu alayhi wax ju waxoon dëgg la waaye tam moo gënoon a nooy ak wet ndeysaan ba ñëpp ñeme ko ñëpp mën koo jaxasoo ba mu mën a jare ñëpp moo tax suñu borom ni ko boo nekkoon ku jàgg ku dëgër danañ daw ba kenn dootu la jege waaye ku nooyoon la ku nooyoonu wet la waaye ko saxaloon mbégte la moom sallallahu alayhi wasallam nekkul woon di ku diis nekkul woon di ko féeñal lu ñaaw nekkul woon du sikkaate nekkul woon di rëbbaate waaye daawul fayee lu ñaaw lu ñaaw waaye lu ñaaw daka daan fayee lu rafet te daan jéggal ko ko def ba bëri na ñu dugg ci lislaam ñoo xam ne jëflante bu rafet moo waral ñu dugg ci lislaam dañ ci nettali benn rek mooy ka daan teg ay dégg ak ay xaaxaam ak lu bon ca buntu kër yonent bi salaa salaam ba mu yëg ne ay fan ëndeetu ko mu laajte ñu ko dafa tawat mu daal di dajale lam dajale lépp dem di ko seeti ba mu fëggee buntu këram dafa tiit jàpp ni kii kat day fayu si lam ko doon def mu ne kooku lu muy wut sama kër ñu ni ko muhammad la mu ni ko bàyyi leen ko kon mu dugg si baxam xam lu muy def ba yonent bi dugg see mu ko loo fi wut mu ne ko xanaa yëg ni da tawat la nga daan def gisuma ko ma laaj ñu ni da ngaa tawat rek moo taxoon ma ñëw di la seet di seet yaram yi nu mu def ca bis booba la yaramam bépp daw ba daa dugg ci lislaam bàyyi la mu doon def lépp kon gis nga kii fayonte gu rafet moo tax mu dugg ci lislaam buñ ci doon nettali ay xissa mën nañ fee yenn wala ñu fanaan mu nekkul woon di fayontoo lu bon lu bon waaye danaa na baale daana jéggal tey du ko dolli lu dul lor ya di gën a bari ci moom waaye muy jéggale di baale rek ñu xool ni uhud damm nañ bëñam moom sallallahu alayhi wasallam toj boppam mu daanu ci kàmb ba dañ koo róof yëkkati ko moom sallallahu alayhi wasallam waaye bañ ko yëkkatee lan la tala def talu la fomp gaañu gaañu waaye dafa doon arooti ko deret ji pour deret ji bana wadd ci suuf ñu ne ko lan la mu ne ko sama deret yonen ku waddal xeet ku waddal sa deretu yonen ci suuf mbugal day wàcc asamaan doo ci man dara fokk mbugal wàcc seen kaw te bugguma mbugal wàcc ci ñoom moo tax may alawti ko deret pour mu wadd bañ wadd ci suuf saxaaba yi mu tar ci ñoom bañ ne ko yonent bi téngale na ñaan yàlla xoolal niñ la def mu ni kenn yónniwu ma ngir may rëbboo kenn yónniwu ma ngir may ñaan kenn yàlla dañ maa yónni ngir ma nekk yërmande leen nit ñi yàlla jéggalal ñii dañoo xamul moo tax ñu def ma lii waaye buñ xamoon li ma leen naral li ma leen yób bëgg a yóbbu fi ma leen bëgg a yóbbu kon duñ ma def lii kon moom sallallahu alayhi wasallam noonu la daan doxale moom sallallahu alayhi wasallam euh, jëlu solo nañ ci Omar ibnu Xataab radiyallahu taala anhu dafa wax ci ay waxam ni koy giñ naa ni yow Muhammad ci samay waju ne nuh boko ko ay nitam sonale dafa ñaan ni borom bi bul bàyyi kenn ci kaw suuf bo ay katchor rek lañu jur ma de xamna ni bo ñaanon lu mel non ñun ñeppay al man mi di omar sax nga xamni fuñ tudde ko bax tudd tay duma dess dana al ndax ñun ñepp la lo waye nga bañ rek ne lu bax rek ngay wax lu bax rek ngay ñaan yaa ngi naan yàlla sama nitu dañu xamul ba tax ñun ñi yalla jéggal ñu ñun ñi yalla duggal ñu ci l'islam ñun ñi yalla baxal ñu tay bu du muñ ni nga muñee kon ñun du ñu am lii ñu am kon sallallahu alayhi wa sallam moo tax ah, Sëriñ Tuubaa ni kii day am na ci lewet loo xam ne montagne sax attanu ko li mu mën a muñ li mu mën a tenir ci ak lewet montagne sax attanu ko daj na bépp lor ci mbindeef yi waaye ma ngay muñ moo tax nag jullit bu nekk war a jànge muñ ci sallallahu alayhi wa sallam waaye du ko jekku rek jekkali ko yaa ma def nangam tey ma wan la du ma sa moroom wala nga eh, nga yor sax sa soxna ci kër xam ni takk beneen soxna yomb na la mu togn la rek nga daal koy daal di wacc do xol njabot xool do xel ken do muñ dara do muñ dara yow luñ la def rek nga bëgg woné nga bëgg woné ni dama wara fayu luñ la def rek nga bëgg woné ni dama wara def réaction ndax amna doole man nako ab jullit du doxé non ndax sallallahu alaihi wasallam bu won non, tay njub gi du tassaro kon royal ci mom muñ ak royal ci mom jéggale te jéggale nak buñ koy wax du ponkal mu la dab ci all bi ëpp la doole yaag mom dong nefa mu togn la bal force la parce que boko balul mëno fayu waaye baal gi yàlla soxla mooy baal goo xam ne dangaa am doole mën a fayu jekku mën a fayu mën a wane sa doole waaye nga jéggale te suñ borom tax yonent bi salaasam noonu la def ba lislaam tasaaroo kon mbokk yi nañ koy roy ci loolu moo tax woykat ba di ko woy ni ko yow de ko tabe nga koo xam ne doo tëye dara kuy joxe nga ne bul won woon taaya bi mu ashhadu an la ilaha illa allah su yonentou bi di wax la do ko laaj mukk mu ni la dedet amu fi wala nekku fi waye dina jema fexe num la joxe waye dula la mukk motax tax mu ni ko won bu dul woon tasawud day muy taaya biñ wax ashhadu an la ilaha illa muhammadu sallallahu alaihi wasallam do wax la motax suñ borom ni ki day ko xér la ci julit yi ki day da leen a yërëm da leen a ñeewant moo tax di wax ni manam woddu nga ki raf yow sallallahu alaihi wasallam sallam leel nga ki xiif yow sallallahu alayhi wa sallam képp ko am jafe-jafe bu ñëwee ci moom dindil nga ko jafe-jafe yow yaay ngën ji aji dindi dindi jafe-jafe moom sallallahu alayhi wa sallam nag ku wàcce woon boppam la ku wàcce woon boppam la ku toroxlu woon la ku daan jaxasoog waa këram la doon woon ko jàgg koo xamante ni day beru rek maanaam du faale njaboot gi du faale kenn déedéet nekkul woon kooku waaye doon na jàppale waa këram ba sax ku ci daan dagg ndawal moom salaasam day ñëw ak daraja ji ko yàlla joxoon di la jàppale yow soxna si dagg ndawal bu taal bi xawee giim mu ñëw ëppal la maanaam eh, xambal la taal bi bu ëtt bi xawee tilim mu ñëw bale ko moom sallallahu alayhi wa loolu yépp salaasam da ko daan def léegi nag ñun bu ñuy kilifa ku ci doon kilifa la ngay xam kay mooy tëju sam néeg yor sab der mom soxna ci bu ñëwee day ram ci buntu bi jox la lam lay jox del. waaye kër gi do see jox jema lijeenti kenn ñu japp ni kilifa ga ca jaamu yalla ga rek la yam dede kilifa ga ci jaamu yalla ga la yam njabot gi da cee bok njabot gi da nga leena wara jégel sa bop di leen nemmeeku ñameel la sa bop su ko defee nga man leena yar motax kilifa yu bare bare seenu njabot détourné wu nañu dem ci Allah ba def lo xamanteni bu ko kilifa yëgee day dar boppam ñam ñepp dar seen gémmiñ parce que ba ko bay commencé yëgu ko ndax lan ndax jago njabootam jegewuñ ko jago jegewuñ ko nemmeeku wu leen ji lijjantiwu leen ma nga cab dara ma kurusam loonte donte loolu lu baax la waaye yar njaboot gi da cee bokk maanaam jege njaboot bi da cee bokk jaxasoog njaboot gi da cee bokk kon moom sallallahu alayhi noonu la daan dunde ak njabootam kon daana toog ak ñu miskin yi daana toog ak ñu ñàkk daana seeti ku feebar moom sallallahu alayhi wa sallam waaye daana teewe seen i néew du ni rek néew bee yabal naa fa nit bii moom borom doole la borom kàttan la borom daraja la teew naa waaye bee moom naa fa yabal as as waay rek wala yëg naa ko rek dinaa def ñaan déedéet waaye moom sallallahu alayhi wa sallam képp ko yëgal te mu bokk ci njabootam mu wee waaj wàññeeku day dem teewe am na benn miskin moo xam ne jigéen la woon saan jigéen ju ñuul la woon mel ni ñun ab africain bu baax a baax boo xam ne nit ñi xeeboon nañ ko ndax moo daan nettoyé jàkka ja moom sallallahu alayhi wasallam ba mu faatoo fekk ko këram ñu ne dañ koo bañ a déranger daal di koy denc ba ko sallallahu alayhi wasallam laajtee ne ana soxna si daan nettoyé jàkk ñu ne ko wa faatu na ba denc nañ ko mu jamono bis boobu sallallahu alayhi wasallam mer na ba ñu gis mer mi ci kanam gi mu ne li tax yëgulu leen ma ko li tax waxu leen ma ko kii nga xam ne am na ngërëmal yàlla di ku baax ñu war koo toppatoo yëgalu leen ma ko ba daa demaat ñaanalaat ko maanaam jullee waat ko te fekk jullee woon nañ ko ba denc ko ba pare moom sallallahu alayhi wa sallam ngir respect boobu moo xam ne respect na ko te kooku ñëpp dañ koo xeeboon ba yëgaluñ ko sallallahu alayhi wa sallam moom noonu la daan doxale ak a sax ba ndaw ñi sax xale yi ndaw yi sax da daan foow ak ñoom moom sallallahu waaye daana wuyi woote bu mën a doon du xool kii am na doole amul doole am na ñàkk na da daan wuyi woote bu man a doon moom sallallahu alayhi wa sallam kon bu dee tam ci matal kóllëre moom sallallahu alayhi wa sallam ci moom la fekk maanaam maanaam matal ko ci moom la fekk baax moom sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nettali benn xissa boo xam ni ku ñu wax xam Hamza dafa jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am lu mu deseel yonent bi war koo am lu mu lu ko yonent bi deseel mu war ko ko jox war ko koo jox mu ne ko nañ joxante rendez-vous barab sàngam ci biir sàngam waxtu sàngam yonte bi saa sam dem di ko xaar di ko xaar di ko xaar waa ji ñëwul waaye ñibbiwul ndax buggul waa ji ñëw mukk fekk ko fa ba def na fa ñetti fan di ko xaar ba ko waaj a fàttali ko daw ca barab ba fekk fa sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ah waa ngóor si de xaw nga maa sonal ndax maa ngi fi ñetti fan di la xaar ndax ba nga ma waxee waxtu woowo ba léegi maa ngi fii di la xaar moom sallallahu alayhi wa sallam kon julli dinañ ragal yàlla surtout nag bokk na jikko bi ñu war a doon ne ci yonte bi saa sam naka la ñuy jubbantee ko ku juum naka lañ koy jubantee looloo tamit bëri na lu mu yàq te waru ko yàq bëri na sax jàkka yu mu yàq te waru ko yàq maanaam salaasam nit ñëw na ci jàkkaam di des di tuur ndox commencé rek di tuur ndox saxaaba yi buur uti ko bëgg koo duma bëgg koo gaañ yonent bi ne leen toogaat leen ñu toog mun leen ko bàyyi leen ko mu eggale waa ji tuur ndox tuur ndox tuur ndox ba pare ba defaru ba pare yonent bi ne ko kaay mu ñëw mu ne ko fii jàkkale dégg nga kenn du fi tuur ndox ne saxaaba yi jël leen ñaari baagi ndox ngeen sotti ko ci tuur fi mu tuur ndox ne leen nag yéen yàlla da leen a yónni ngir ngeen yombalal nit ñi waaye yónniwul leen ngeen di jafelal nit ñi kii daa xamul moo tax mu def lii kon nañ ko xamal rek te bàyyi ko mu dem loolu mooy mbooloo da ngay ñëw sax ci jàkka nga bëgg a jubbanti nit nga waxee ko ko waxee wu diis woo xamante ni mu wax ak yow tontu ak yow problème am wa illaa sax mu mere ci jàkka ji ba tax sax julli gam ko gam fa daan def nga xañ ko ko ba dootu fa ñëw te fekk ni na nga ko jubbantee moo baaxul yenn saa nit tas ci këram fekk soxna si juum rek tey nga fekku ci digg kër gekk njabootam daal di koy wax njuum tale mu daa di ne tontu la nga ne ko mën ngay tontu may naa la sa baat sëy ba tas na te fekk ni yow yaa juum yow borom kër gi ndax juum na waaye fi nga ko corrigé itam da juum yowee sa doom gi nga jur sax yenn saa yi nga corriger ko mu réactionné ba wax la loo xamante ni waru la ko wax nga ne yow yaay tontu sama yaay yaa yow yaa may tontu may sa bàyyi nga may tontu génnal sama kër wala defal nangam te fekk ni bàyyi bi moo juum ndax fa mu ko fa mu ko waxee ak moom la wër la waxee moom noona ndax doom ji nit la nit kenn du ko toroxal kon nit kenn du ko toroxal kon nit mën nga koo jubbanti ci juum dem te doo ko toroxal doo ko blessé doo ko gaañ moom sallallahu alayhi wa sallam noonu la daan def kon nag mbokk yi nañ jàpp ci jikko yi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di ko roy waaye nañ ko jàpp ak suñu bañu roog seen mooy bañ ba mujj ci suuf bu ko defee kenn du ko mën a loqati ñu mën a dunde noonu ndax noonu rek mu am solo allahuma wafiqna lil iqtidaai bihi fi axlaqihi wa afaalihi wa axwaalihi wa aqwaalihi وارزقنا حبه والموت في حرمه وشفاعته صلى الله عليه وسلم طويل لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمرا كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلايا الدهر يا الله والتف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم عباد الله قوموا إلى صلاة يرحمكم الله